a Gris 2 fi nga sa loxo baaxul waaw ah, mu ngi koy dóor attention mu ngi koy dóor gauche attention mu ngi koy ay hypercule mu ngi mu ngi koy dóor ay hypercule na doomu dangu mu dangu Gris 2 du moins doomu dangu attention bu ngi koy dóor gauche eh bu ngi koy dóor attention doomu dangu ndeysaan xoolal Gris Bordeaux ndeysaan xoolal Gris Bordeaux ndeysaan ndeysaan xoolal Gris Bordeaux ndeysaan Gris Bordeaux ngi noonu dem ndeysaan oh mbokk ndaye jur ndeysaan ndeysaan Gris 2 daan na ko